mënoon tem <laughs> du ko a dóor. waaw te xam benn li ma doon xam rek la. ba pare moom du ma dem yoonam. wax nga lu neex. mantu takku suuf bu la rek borom xam-xam yee ko la jël. ci naka. li tax ñu la jël ko njaga ki jàngul am alal. ànd ak borom al borom xam-xam. ki jàngul. te am alal. ok xaritoog borom xam-xam bu ragalul yàlla. waaw dugg laaj ko ci bu ci seetul yàlla xool lu neex borom alal bi. maa la dégg. xaw ma ndax nga ma. bu baax. mantu léeg-léeg nit du xam diini. Mhm. waaye yàlla dina ko suturaal ci alal. mu daje oustaz bu xam jotul ginnaawam te bu ko waxee lu ko naqari dootu lekk teraangaam mbaa ñu mm. mu laaj la lu sew. nekk ci biir sew sew ba pare nekk ci biir lëndëm. ci doju ñuul kukk melentaan bu ñuul kukk di ci dox mhm. bu la yàlla dimbaliw doo xam fan ngay teg sa tànk mooy li mhm. waral takk suuf ba tey werante bu dul jeex am na amul ñi ci ëpp nag ñuy réeral borom xam-xam lay doon parce que nit mooy ñëw ni la dama am soxna takk suuf laa ko takk lan la ci diine wax mhm. il nga orienté ko li noppale li ma la wax chaque jour ni la njaga diine laajul ci gaagu yaatu nettali waxi jàmbur la mais bu lëjee rek ay xel ay ay xel yu bari ñoo ñoo ci jonkan ak na nga ko nettalee. ak ah na nga ko nettalee mais njaga yàlla bëggul lu lëndëm. Mhm. Mm, gis nga euh, baatu takk suuf mantu ñu ngi koy woowe ni kaaxu sirri mooy takk suuf takk suuf boo xamante ni yàggul maa ngi ci waxtaan ak oustaz Alioune Sall waxtaan bu yàgg yàgg yàgg ñu ñaar ma ne ko oustaz mbaa yëg nga ni takk suuf mu ngi lëmbe jamono mun maa ah, ci ñaari anam la de njaga ñi dañuy takk pour bañ kenn rek bañ koo yëg muy soxna si. ñi si des ñëpp entourage bi ko war mën nañ koo yëg muy ay nijaayam muy rakkam muy magam mën nañ ko yëg am koo xam ne bi mu takkee nag amul entourage bi mu bokk ku ko yëg ku dul moom xam que Mouhamed Mbaye déparé na fi dem Tamba takki fa jabar bi muy takk jabar amul ay seede dafa dem rek gis ñaari paa yoo xamante ni tey ëllëg bu lëjee dootul gisi paa yi mm-hmm. dootuñu xam fan la fa ñan ñoo fekke woon sëy bi mm-hmm. tey dee am xale yi egsi ci dëkk bi ànd ak seen yaay ñu ni ah kii kat diw nee na mooy jëkkëram automatique waa kër gi xam deret leen xam ne xale yii diwa leen jur mhm. mais problème bi mooy ndax ci buum la leen juree wala jureewu leen ci buum dëgg la ñu ni ana seede yi mu ne sama papa seede na ko parce que baay bi matul seede sama yaay seede na ko yaay ji matul seede sama xarit seede na ko ana ñi nga xam ne ñoo fekkee woon sëy ba bu fekkee ni waa ji dafa amoon ñaari paa yu mu luye ñaari paa yooyu nga xam ne da leen a luye te moom mi leen luye woon bu delluwaatoon di wër paa yi xamul yan paa la takku suufa ngay dugg bokkul mantu beneen takk suuf bi nga xam ne jigéen ji sëy na ba tas tourné ne day maye boppam te maye boppam bi par force mu am ci ñu mu jaar parce que mantu mul tëb tëb rek ñëw ni njaga damay maye sans bopp moom njaga ñu toog waxtaane ko sëy bi daal di départ boo déggee ñu naan jigéen day maye boppam foofu mooy par force sañ naa jéggi baayam dem uti keneen ku ko maye comme comme comme gis njaga ci jàkka ji mu doy ko wala gis Oustaz Mouhamed Mbaye waxuñu la jigéen ji day tas rek takku suuf gi nag yaatu lool mantu ci pàcc mais amul benn bu ñuy nëbb ci takku suuf mu wér l'islam di ko nangu donc yow bu ma euh, euh, toppee yow ni ngay xalaate oustaz ak li nga xam ne moom nga jot a jàng tegal nu ko ci xam-xam mooy lislaam reconnaître bu takku suuf. nangu ko koo dégg mu ko. njaga koo dégg mu nangu takku suuf rek benn dakaa bu dee boroom xam-xam dakaa def nëbbu ko. jërëjëf. koo dégg. man mu ne la takku suuf dagal na jàppal ni borom xam-xam la bu takkoon takku suuf bëgg koo dëgg ci tànkam. convaincre ay nit yi mu wër gis nga nit bu xam-xamam dëgërul napp ko day yomb. day yomb waaw. léeg nga dem nga nga xool tey borom xam bu toog ci jotaay ak keneen natt ni kii xam-xamam wóorul mu attaqué ko moom ci sañ-sañu boppam bu kee ñàkkee riposte rek day daar ci kawam jàll léegi nag moom li mu jotoon a jàng doonte moo xaw a wér waaye wóoluwul xam-xam boobu ki jàngul fit la koy nappee ba jaar ci kawam jàll léegi nag jàppal ni ñaata million de personnes la yóbbaale mais koo dégg mu ne la takk suuf dagan na jàppal ni borom xam-xam bu ko defoon la tëddi ko nëbb merci beaucoup l'islam nangu ko reconnaître ko daganal ko parce que if su siiwal leen l'islam bu ñu bu sëy xase ba am farata ji mooy nañ ko siiwal hmm. boo déggee siiwal bi mooy ah Mouhamed Mbaye kat takk na diw kon Faal Njaga mi doon xemmem ndaw si kat na ci génne xelam Mouhamed bay takk na ko mais bu fekkee ni da ngaa takk suuf jàppal ni ña doon xemmem ba tey jàpp na ñu ngi xemmem bu daan amee yow ku góor ki nañ la xoolaat dëgg la kan kan kan mantu kan mooy nangu ak lan moo nekk njaga l'islam buggul si alxabaara muy civilisation mantu l'islam dafa civilisé l'islam dafa dafa set l'islam dafa sell amul ci lu l'islam di nëbb gor xel di ci njuuj ndaaj l'islam di ci participer. da koo xaram dafa xaraam wala da ko reconnaître dafa aram reconnaître ko. maanaam dafa aram. dafa aram suuf parce que parce que li waral seede yi. dafa nekk yu différent. waaw ah, dafa am ay sew sew. yu sew ah, nga sew sew yooyu. la borom xam nga loo xam ne waaw ak luñ sip ak ah. boo ko defee am na luy tegu sa kaw daan. léegi te te te te bàkkaar euh, oustaz Makhtar wax na ko keroog nee na. am na façon boo xam ne ci lañ leen di yare ñi nga xam ne ñoo ko def donc loolu bu yar ba duggee rek xaraam ba dugg na parce que dafa boo déggee xala man faw ñu xàmme farata al fardu faw ñu xàmme as sunnatu mooy sunna al makruhu lu ñu sib al xaraamu lu xaraam al mu baaxu ak lu ñu baaxoo juróom yi mhm. faw kenn ku nekk xam concept bi muy dugg nga mën a xam ne lii lii mooy acte bi lii araam araam na ñaara ci am ñu teg la ci ay door wala ñu teg la ci ay daan as sunnatu sunna mooy lu yorent bi digle mu neex la nga def mu naqari la nga bañ a def mhm. al makruhu lu ñu sib ñun laa li kat bu ñu sañoon nga bàyyi ko boo demoon ci makruhaat yi tey bu doon ci julli dañ lay wax aklu sawmi wa aklul basali wa saw sawmi nayyan sib nañu kuy waaj a julli nga lekk laaj wala nga lekk soble bu ñorul xam nga araamul ñun la doon koo sib ci booy waaju julli mais nag ñu la tegaloon tey yaasa day am soble. waaw da nga koy lekk. wala ñu tegal la tey dibi boo xam ne dañ laa tegal euh, soble ci gi xam nga araamul. Mhm. mais dañu la boo demee bay waaju julli sib nañu ci yow nga lekk soble bu ñorul wala nga lekk laaj bu ñorul. kenn du la ci bindal bàkkaar waaye daal sib nañ ko. Mhm. maanaam gënul daal boo ko mënee moytu. voilà waaye du la ci bindal bàkkaar al mu baaxu nag mooy mooy comme su kalabsi comme sol ay yére comme lekk comme naan fala sawaaba fiihi wala iqaaba amul mbugal amul am am amul tuyaaba mhm. xam nga lekk xam nga naan xam nga nangam lu nit war a def la mais li nga xam ne l'islam daf ko baare ni la lii kat l'islam daf ko baare saa yoo ci déggee discussion bu lëndëmal borom xam-xam rek jàppal ni borom xam-xam a ko def dëgg ci tànkam. borom xam-xam mooy dem takk-takk suuf bu ñëwee li tax muy lëndëmal xel ñu ne ko lu tax nga def ko mu ne am naa ay seede. Mhm. l'islam te moytul borom xam-xam jaga bu jàng te saay-saay. Mhm. mantu daf lay convaincre convaincre bu gaaw parce que lim lay sa xel gaaw ko danaan la ah sëykat faratay mooy na can li dugg joxe naa can na seede yu dugg mais yan seede la am njaga bu ñu lay wax seede dañ la wax ne la indil seede yoo xam ne bu ëllëgee ñoom boo leen waree di nga leen gisaat ñooy xam lay doon ñaareel bi mooy ay nit bu takkee soxna ba pare nga di leen lay ni ñaan bu mu jëm kaw jàpp ne daf ko takk suuf parce que am na peine boo teg si seen diggante charte boo teg te l'islam dafa ne ah? ma laaj euh, takk jabar ma takk ñaari soxna waxtaan ak benn ah, ñaareel bi ma ne ko ah man nag d'accord nañu ni duma fi aye samedi ba samedi laa lay jox walla bëccëg bi dinaa fi jaar waaye duma la jox kay jabar ji ànd ceeg man ànd ceeg man mhm. démb dafa am ku am dugg wax masala bu am solo mhm. mu ni yemale gi mhm. yamale gi. mu ni boo demee ay ay loo rek yamale la déjà. mu boo demee ba nga xam ni euh, euh, euh, nañ ko firee ni soxna yi dañ leen a takk waxuñu ku ko man waaye ku ko ñu yemale leen. Mhm. Mhm. man takk naa de naa de soxna si. Mhm. am naa aawa. ma waxtaan ak sama soxna ni ko kat du ma jox kay lu dul ba bi laa fiy jaar. maa soxna si déggoo ci. maa soxna si. déggoo ci. ñu déggoo ci kaw ni du la présenté sama benn mbokk. ñu déggoo ci ndax su boobaa day ndoróog takku suuf li mën nañu ni takku suuf ndax su boobaa day daal di dugg ci araamal takku suuf wala su boobaa du ci du ci dugg fekk ñaari adulte la yoo xam ne ku ne nangu na liñ ko teg voilà ñoom ñaar ñëpp ñoom ñaar waaye siiwaluñ takk gi wala siiwal nañ ko siiwaluñ ko takku suuf la parce que nangul benn bokk yëg ko ñoom ñaar ñoo ko waxtaanee njaga ñaar mhm. kase bu ñu waxtaanee day am seede wax naa la day am seede seede yi teew ñu déggoo boo demee ci jumaa ñun la ani seede yi njaga li ñu war a laaj ci takk aka moo bari ta laajatuñ ko mantu bu ñu toogee ci jumaa wala ci jàkka war na yemale gi yemale gi euh, euh, léegi du takk suuf mais su ma ci waxtaanee ni la du ma la jox kay lu dul bëccëg bi laa fay jaar ñu waxtaan ci ba juboo c'est bon te te l'islam kii daf moo mas di jàngal ne ma l'islam sapeur pompier la buñ ko woowee la ñëw buñ ko woowul ñëw ñaari mag yoo xam ne ñu ngi sëy ci farata sunna ñaar ñëpp déggoo ci ne anam bii la ñuy sëyee est-ce que foofu l'islam dina fa intervenir l'islam du ci interview parce que yamale na parce que kii xam nga l'islam ban yamale lay bañ mhm. mooy ngay ngay defal kii loo dul defal kee te di ko nëbb mais bu fekkee ni man ak yow waxtaan nañ man la man bëccëg laa mën di ayees nga ni ma d'accord naa ci bëccëg gi man ak yow mu wóor ta leer boole koog mu nekk nag siiw bu bu fees bu sëy ñëpp a koy d'accord